xeme moon si Touba ba tax dootu leen demati feneen di jéggaan leneen na fii bu bi showroom Jawdeco Déco si Touba 28 ak le gérant Pape Abdoulaye Diaw talibé Serigne Fallou Cheibou bi moo sagal doomu dara bis ni ki tey jàppaleen kenn dematul feneen di wuti leneen ndaxte nag ni ko Serigne Touba waxe woon si Matlabul Les lépp lu gën léppay ak si Touba wa mbokki Sénégal mbokki Touba lépp lu ajo si wàllu lumière électricité meuble pour seen décoration métallique Les lu jëm si bois inox ak Diaw ko fii Touba 28 jaaxle jeex da ngeen bëggoon ay enseigne ngir taaral seen barabu kay mu don totem branding habillage façade lettrage enseigne lumineuse yu mango ak jamono jawde ko famuy tibé fofé la ñi gëna xam ñi gëna rañé le ñi gëna bëgg lu baax dekk yi gëna a mag si àdduna kep di jëlé kon dal mbokk yi ak ci 28 am nañu ay lumière sur toutes les formes ay nouveautés tendance yi nga xamanteni mom moom appliquer partout si barab yi gëna a mag ay luminaire suspendus luminaire plafonnier si jawde ko ci Touba fait une large gamme de luminaires et de lampes waaye nag décoration liñ ci mën mëni kenn mënu ko si fii si mim réew ay décoration yu méngoog jamono décoration intérieure ngeen am salle wala salon à manger ngeen am jàkka jumaa ngeen bëgg ay lustre wala lépp luy xet décoration pour barab yooyu bu ngeen amee barabu xasida ñëw leen jaw déco décoration chambre espace bu mën a doon lépp lu jëm si électricité am les grandes marques du monde le grand Ingelec am a ay contact ak lépp loo xamante ni daal moom ngeen itteewu kay nga découvrir suñu ay di coupe laser jaw yembal machine 8 tax gain mën réaliser li ngeen bëgg jaratul dem Fanen suñu ay machine moo leen a ay design yu mucc ay pour seen décoration bu mu don, rampe escalier wala le plus travaux suñuy enseignes sont de qualité garantie pour une durée de un an si loup menuiserie ya mbokk boki bu dressing cuisine américaine comptoir ngeen bëgg ay logo yu mucc ayib mën ngeen woti 224 44 04 wala 726 84 84 jaw deco si Touba moo leen gunge si le plus seen travaux ànd ak personnel bu disponible accueillant xam wàllu wi ak gérant bi nga xamante lepp lu yok Touba moko ko tax a jóg moom Pape Abdoulaye Diaw talibé Serigne Fallou Cheibou moy ñaanal ku tedd ki Serigne Muntaha Mbacké Bachir Khalife général des Mourides yàgg fi lol te ànd ak wér leen ñaanal màggalu jàmm nekk leen jë rek day gëna neex rek di gën baax alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen siyaare bu baax a baax a baax di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xam ne nag mooy weeru safaru ren wi war a tolloog atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ati gàddaay gi am naa nag boo ngeen gisee arrière plan bi suñ ginaaw ngeen xam ne yitte ji mooy résidence bi nga xam ne mooy kër mag moom ñu koy wax résidence Cheikhoul Khadim ñu war cee am liggéey bu am solo boo xam ne seen télévision Al Khadimiyyah ñoo ko fas yéene ànd ak sëñ Basirou Niane ci biir kër gi activité yeeg euh, li nga xam ne moom moo concerné jëmmi résidence bi ak doxin wi ci biir ba nga xam ne kum kum umpoon da nga ci mën a dañ kumpa incha allahu taala kon incha allah dañ koy fas yéene ànd rek ci ci ci wàccaayu safar wi fas yéene koo tabbee ci bis mag bi muy fukki fan ak juróom weer wi ñi ngi santaat bu baax a baax di gërëm kon ñu ànd kook yéen incha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki talibe yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen siyaare ci seen télévision bii di alxadimiya TV ni leen ko waxee woon sànq ci chapeau bi rek bi ñuy dugg ci résidence bi Cheikhul Khadim kër mag moom ñu ngi fi nag nekk ak sëñ Basirou ñan ñu bàyyi ko mu nuyoo ci micro alxadimiya bu ko defee ñu soog a sóoboo ak moom ci waxtaan wi sëñ Basirou alxadimiya ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel ci weeru tedd wi di weeru safar saa yoo xamee ne événement yi mel na màgg jub si na ñu ngi dalal fii nekk alxadim yi di leen sant bu baax ci taxawaay yi nga xam ne moom lañ baaxoo def ci yoon wi ak ci diine ji ak lépp loo xam ne day njëriñu askan wi. Cheikh Bassirou xam naa euh, laaj bu njëkk bi rek mooy boo ñu doon dikkal ci sa jëmm ban rôle ngay joué ci biir résidence Cheikhoul ndax bari nay pàcc bari nay jëmm yu waaye ku ci nekk mel na ne am na lu ñu la jagleel loo xam ne kenn fekku la ci yow dong yaa ko jagoo boo ñu doon wax sa rôle ci biir résidence bi loo ñu ci mën a indil. waaw xam naa loolu day liñ ci mën a wax rek mooy euh, loolu bi fi joué moom mooy nooy ndongol euh, ñi nga xam ne ñoom la fi sëñ bi teg ñu yore kër gi ñu boole nu ak ñoom ngir nu ànd saytu taxawu liggéey lépp loo xam ne kër gi daf koo soxla ci taxawaay ci euh, taxawu ci yeesal ci lépp loo xam ne daal mooy tax euh, kër gi mu doon di kër Cheikhul Khadim ku fi ñëw ku nekk euh, mën a gis lu méngoo ak loolu. Cheikh Bassirou xam naa laaju ñaareel bi moom mooy jëmmi kër gi kon boo ñu ci doon dikkal bëgguñoo planifier kër gi taarix waxal kër gi secteur yi niñ ko pàcc yi mu composé yi nga xam ne ku ko dégg xam ne kër gi kon am na nangam am na nangam wet sàngam mooy barab sàngam loolu noonu ci ñu ci mën a indil. waaw foofu itam li leen fi mën a andil mooy xam ngeen ne kër gi. Euh, sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nafaana bi bi kulliyatihi ci xalaatam yu rëy yu yaatu yu soriya ci la gise woon ne eh, ku amub dëkk ku nekk war faa amub kër koo xam ne dañ dëkk bi yaa ko moom war nga fa am kër mu ñu sëraloon sëriñ Touba nag ay kër fekk kër gi ñu nekk di kër sëriñ Touba gii ci jumaa ji soow jumaa ji Cheikh Mouhamadoul Bachir mu nga xam ne mooy wajur Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne moy khalif general demour yalla ni na fi gëna yag yàgg wër mom mom moo moomoon kër gi serigne Moustapha Bassirou ci jamono jojja moo def xalifaam mooy xalifa sëñ Bassirou bi ko sëñ Abdou Lahad Moustapha Bassirou lako laaj mu jox ko ko ci tour njabotou serigne Bassirou gep waye serigne Abdou jox ko kër gi nga xamni moy kër serigne Moussa Nawel nek ci kër gi ci année 80 yi ci la ko sëñ taxawal daldi di nak serigne Moustapha Bassirou momu ak serigne mohammedan Jobbe mi nga xam mo doon khalifa serigne Massamba ak serigne Modou Badar Diop Euh, ak euh, moom ci boppam moom sëriñ Abdou Lahad moom itam mu def fi bâtiment bâtiment bii ci ñuy jàkkaar lool mooy bâtiment bi sëñ Mahamadan Jobbe sëñ Bassirou li nga xam ne solo moo tax ma bëggoon gën a jege micro bi waaw bâtiment bi ñu ñuy jàkkaar lool mooy bâtiment bi sëñ Mahamadan Jobbe bâtiment bi ci suñu ndeyjoor boobu bâtiment sëñ Mahamadan Jobbe juróom-ñeenti néeg la ak benn salle euh, bâtiment sëñ Moussa Bassirou juróomi néeg la woon ak ñaari salle waaye léegi ñeenti néeg la ndax daf benn néeg ba dañ ko transformé euh, bâtiment bii ci sun gannaaw mooy bâtiment sëñ Modou Badar moom juróom-ñeenti néeg la moom itam ak benn salle mook bâtiment sëñ ñoo tolloo ñu nuroo bâtiment bii ci sun càmmooñ étage bi mooy bâtiment sëñ Blaat moo ko fi defal boppam fukki néeg la ak juróom euh, bi nga xam ne fi ñuy wax palais case bi ci sun gannaaw kenn ku nekk dégg na ne sëñ Blaat bi muy santaane liggéey bi wax na ne dafa am benn case bu fi bëgg a def boo xam ne néeg boo xam ne juróom-ñeent fukki millions yi ci jamono jooje mooy case bi ci sun gannaaw am na lu ñuy wax mbaarum soxna may ma nga ne ci sunu mooy mbaarum verre yi am na itam pale boo xam ne bi nga xamee si Sëñ Blaat gisoon na ne ay njiiti réew dañ fi ñëw te war nañoo am euh, barab boo xam ne dana méngook euh, dara ji suñu borom jox ci la xalaatoon ne war na fee benn palais mu gis alaaj jëli mbay nekkoon ko nag damaa yow gën a am nga pale damaa bëggoon nga defaral ma plan boo xam ne maanaam euh, ganu président gu ma amati wala ko ku méngook moom ma ma dalal la fi Euh, jili ala jili wax ko ne ko lolou mom damay defar plan bi waye man ma maa koy tabax moy moy kon fiche ci de sunu gannaaw itam bu ngeen xoolee ci gannaaw kaas bi amna fa bâtiment bu ñu wax daru salaam itam wa daru muy euh, wa keur maam Cheikh Anta borom gawan mom la ko Serigne euh, kon bâtiment yi amna itam restaurant bu fi nek bo xam modu biñ koy yeesal serigne Modou Ablaye Fall Ndar Euh, moom moom bi bi ko sëñ bi sant muy yeesal bâtiment sëñ Mahamadan bi ci la restaurant bële mu tegaat beneen ca kaw muy ñaari muy ñaari restaurant muy mu euh, suuf gi ak ak kaw gi kon bâtiment yi ci kër gi noonu la tëddee euh, bu ci nekkit loolu loolu moo fa nekk. Mm-hmm. sëñ Bassirou loolu am na solo ni nga ci duggee day mel ne ku ku maîtriser wul li muy def dafa dafa mel ne du ko mën a defee ni nga ko defee macha allah. xam naa kon bu ñu waxee bâtiment yi dikk ci sa sa fonction bi ngay exercer ci biir kër gi léegi nag jëmmi ni ngeen di tëralee tëralinu dalal gan ñi. ci ci ci eh, orienter len gan sangam barab sangam la yelloon donte ñëpp yam ci suñ borom waye lool waxin la lool nan ngeen koy planifier ba nga xamne gan gu waccu way bi mu yor ngeen jox ko barab bu tollok jëmmam lool nan ngeen ko planifier seen bir wa lool lepp nak ci ndimbalu serigne bi rek ndax serigne bi ci bopam gan ñi dal fi gan serigne bi lañ ndax ñepp gan gan fi gan gan serigne Touba lañ te sering serigne moutakha mom Cheikh du Bassir mo fi serigne Touba kon euh, barab bi barab serigne Touba la gan ñi tam gan serigne Touba la Euh, kon lépp loo xam ne moom la gan Serigne Touba laaj euh, dañuy xalaat ci nekkin wi ci néeg yi ni mu war a mel la fa war a am néeg bu nekk ba bu fa nit duggee ak teraanga ko fa lépp lu mu soxla rek nga xam ne so lu mu soxla woon këram rek dana ko fa maanaam wala mu am fi sax ba am fi loo xam ne maanaam amu ko këram noonu lañ programmé. Euh, ba ba doxalinu kër gi hmm. sëriñ bi nag moo fi yebal ay ganam wala ay ay ak njabootam maanaam mooy ay gani bopp yoo xam ne dañ fa dal ñii dañuy yendu dem ñii dañuy fanaan ñii dañ fi ami fan mhm. waaye lu mu ci doon itam euh, par rapport comme ni nga ko waxee ne na kilifa ga demee euh, lépp lu aju ci moom daal lu war ci moom euh, ci ay teraanga ci ak màggal ci wormaal ci ci respecté ñi fi nekk ñëpp dañ maase taxaw ci bâtiment bu mu fi dem ka nga xam ne moo yor bâtiment ba dana taxaw ca loola euh, ba ba gan gi dana gis ne moom ci biir këram la nekk. tubarkalla laaj bu mujj Cheikh Bachirou moom mooy bu loolu amee gan ku ne xam na ne soxla na fu set soxla na ñu koy saytu saa su ne soxla na fa muy nekk ñu koy yeesal léegi loolu. lan nga ñu ci mën a indil ci ni ngeen ko tëralee ñii féete wàllu cet gi ñii féete nangam ñii féete nangam. loolu la ñu ci mën a indil wàllu set gi dafa am ay daayira yoo xam ne ñoom dañoo jaayante ci semaine bi lu demee ne dibéer altine euh, ak euh, alxemes ak ajjuma dafa am ay daayira yoo xam ne dañuy ñëw di seetal kër gi waaye teewut sëriñ maam Thierno moom sëñ Moussa Bassirou mi nga xam ne moom la sëriñ bi jox liggéeyu kër gi nga xam ne lu jëm ci yeesal ak réflexion saytu moom la ko jox moom itam dafa jël benn société boo xam ne da leen engagé ñoom itam ñu yore kër gi di ko setal maanaam ci bis bu nekk bis bu nekk ñoom dana am bâtiment yoo xam ne dañ fay dem setal ko su laajee itam ay gan yoo xam ne kër yëpp day am gan dañu leen koy annoncé bu ko defee ñu def seetal boo xam ne du ne tey bâtiment bi la ñuy seetal waaye tey kër gi lépp lañuy ñuy ndax gan ñi ci bâtiment yëpp la la la la leen di dalal kon cet gi ci daayira yi nga xam ne daayira Sëñ Tuubaa la ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu googu bis yooyu ma la wax bis bu nekk daayira dina fi ñëw fii seetal kër gi lépp waaye itam ñi nga xam ne ñoom la bu sëriñ maam Thierno Moussa Moussa Bassirou jël moom mi nga xam ne mooy wàllu cet geeg yu demee noonu ak wàllu saytuwaat bi ak toppatoo bi ak defaraat bi moom itam société boobu ñoom bit bu set danañ xëy si dañ fay nekk en permanence bit bu am bâtiment bu ñu setal su laajee ñu setal kër gi yëpp ñu wax leen ko ñu setal alhamdulilah xam naa kon dañuy fa yéene incha allah bu ñu mm, xam naa kon laaj beneen bi nga xam ne moom lañ koy tëjee rek muy jëmmi weeru safar yi xam kon li nga wax dafa aju ci gan gu fi ñëw à tout moment nga xam ne aja aajewul weer aajewul waaye nag particularité bi ci feeñ moom mooy weeru safar moom dafa am particularité boppam gan ñëpp dana leen teral naka jekk waaye weeru safar nag da caa rawati particularité bi weeru safar am ci gan ñi fi ñëw gis ne kër gi soppiku na ba ñu ko seen bopp waaw loolu moom loolu moom mooy euh, bi rek ci gan ak toppatoo ko ak bernde comme ni ko waxee ci safar euh, ba na gan ñi nga xam ne ñoo fi dal mooy kilifa diine yi maanaam mooy ñu jógee Tivaouane moo xam ñu jógee Ndiassane moo xam ñu jógee eh, Yoff wala Cambérène moo xam ñu jógee Ceneba moo xam euh, kilifa diine yi ci réew mi daal fu ñu fi mën a jógee ci barab bi ak Daaru Manaan la ñuy dal waaye li nga xam ne mooy war ci ñoom ci teraanga bu ñëwee ci safara bi bu ñu doon def ci yeneen bis yi benn bu dee safara bi dañ ko day mel dañ koy ful fukki yoon ndax eh, jàpp gu ñu gën a jàpp ne bu fi sëñ Tuubaa gan ñooñu moo leen di toppatool moo leen di teral boppam ba tax na nag gannaaw dañ leen caa wootu ci ndigalu sëriñ bi dañuy xayma rek sunu kéemtalaay kàttan donte mënuñoo àgg fa sëriñ bi bëgg fa sunu kéemtalaay kàttan euh, lépp loo xam ne moom lañ soxlawoo sëñ Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moom sëñ Abdou Khadim mi nga xam ne moom la sëriñ bi teg liggéeyu màggal gi ci ci loxoom mu ànd ko ak sëriñ Ousmane Mbacke mi nga xam ne mooy coordonnateur bi ak président commission d'organisation muy sëriñ Cheikh Mariam Mbacke lépp loo xam ne moom la gan ñu soxlawoo fii ci euh, kër sëñ Touba gi jumaa ji ak ga ca Daaru Manaan ci xeeti bernde ak lu mën a doon ak lu mu wuute lépp daal bu waxtu wa jotee ci waxtu yi nga xam ne ci la ñuy bernde bu jotee lépp dana yem. Cheikh Bassirou kàddu yi am na solo yan waaw sant bu baax di leen gërëm di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu dol noo jàppale. gën fee yàggal Cheikh mun Mountakha ba mu àggale ay naalam ak mboolem jabootu sëñ Tuubaa gépp te sun borom yóbbu ñu ci safara ak jàmm te ñu weesu ko ak jàmm te ndam lu ñu ci daan am ndam ndam ndam li ñu jëm gën gën ko ko sant nañ baax a baax jërëjëf jërëjëf ñoo ngi leen sant baax leen gërëm bi ngeen xamee moon si Touba ba tax dootu leen demati feneen di jéggaan leneen ak si na fii si dëkk bu sell bi showroom jaw Déco si Touba 28 ak le gérant Pape Abdoulaye Diaw taalibe Serigne Fallou Cheibou bi moo sagal doomu dara bis ni ki tey jàppaleen kenn dematul feneen di wuti leneen ndaxte nag ni ko Serigne Touba waxee woon si Matlabul Fawzayni lépp lu gën léppay ak si Touba Diaw Déco ma nga ca yoon wa mbokki Sénégal mbokki Touba lépp lu ajo si wàllu lumière électricité meuble pour seen décoration métallique lépp lu si wàllu bois cawde ko fii si Touba 28 jaaxle jeex na da ngeen bëggoon ay enseigne ngir taaral seen barabu liggéeyukaay mu doon totem branding habillage façade lettrage enseigne lumineuse yu méngoo ak jamono jaw ko fa muy tibbee foofee la ñi gën a xam ñi gën a ràññee ñi gën a bëgg lu baax dëkk yi gën a mag si àdduna wërngal këpp di jëlee kon daal mbokk yi ma ne ngeen fii Touba 28 am nañu ay lumière sur toutes les formes ay nouveauté, tendance yi nga xamante ni moom la appliqué partout si barab yi gën a mag ay luminaire suspendu luminaire plafonnier si jaw ko si Touba d'une di une large gamme de luminaires et de lampes waaye nag décoration liñ ci mën mën yi mënu ko si fii si mim réew ay décoration yu méngoog jamono décoration intérieure ngeen am salle wala salon à manger ngeen am jàkka jumon ngeen bëgg ay lustre wala lépp luy xet décoration pour barab yooyu bu ngeen amee barabu xasida ñëw leen jaw déco décoration chambre espace bu mën a doon lépp lu jëm si électricité am les grandes marques du monde le grand Ingelec am nañu ay contact ak lépp loo xamante ni daal moom ngeen itteewu kay nga découvrir sunu ay découpe laser jaw déco mo len yembal machine huit tax ngeen meuna réaliser li ngeen bëgg jaratul dem fanen sunu ay machine mo leen génnal ay design yu mucc ay pour seen décoration bu meuna don rampe escalier wala lépp luy travaux sunu enseignes sont de qualité garantie pour une durée de un an si wàllub menuiserie jàppaleen mbokk yi bu ngeen bëggee dressing cuisine américaine comptoir ngeen bëgg ay logo yu mucc ay mën ngeen woti 76 224 44 04 wala 76 726 84 84 jaw déco si Touba moo leen gunge lépp luy seen travaux ànd ak personnel bu disponible accueillant xam wàllu wi ak gérant bi nga xamante ni lépp lu yokk Touba moo ko tax a jóg moom Pape Abdoulaye Diaw taalibe Serigne Fallou Cheibou mooy ñaanal ku tedd ki Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides yàgg fi lool te ànd ak wér leen ñaanal màggalub jàmm